bés bu ñàkk amul problème ak euh, la mouvance présidentielle bokkatuñu ci beaucoup ci bokkoon nañ ci ba mu neexee ànd bi boo xoolee bés bu ñàkk lépp daf ko wutal boppam bés bu était dans la mouvance en 2012 bi Macky di jël pouvoir après ñu dem élection législative bi ñu demee élection législative bés bu ñàkk demal élection ànd la coalition.

avec la coalition Benno Bokk Yaakaar lenn moom moo ko indi moom mooy fi nga xamante ne waa ji waxantaan noonu nañu njël njëlbéen mu ne daal juróom-ñaar lay def dama koy wàññi def ko juróom mu ne da koy léegi mu yokk ko yokk boobu moo indi suñu problème ak moom mais amuñu beneen problème boo xamante ni ci mandat présidentiel bi loolu rek moom moo nekkoon problème bi mais gisuma ci daal beneen problème boo xamante ni moom mën na ci am. non non xam nga lutax nous ñun dañ démocrate dañ jaay démocrate dañ jay may démocrate xam nga problème bi lan la mën nañu bàyyi nit ki muy rek mais xam na fu koy parce que problème bi lenn la woon dañu ne nañu du moment qu'on se connaît on a déjà fréquenté la coalition nañu système la on que xamante ne ñun ñu ne nañu non. et puis que non lañ ko bayé légui nak ñu dem pour décision concernant les cinq candidats ñu wara jël wala Idi wala Sonko wala Issa Sall wala l'ensemble des candidats parmi eux am ño xamanteni ñew sollicité teg nañu un projet y compris même euh, euh, la coalition Benno Bokk Yakar. nous nañu waxtaan nañu def nañu lépp que nous euh, le président Mansour ñu discuter ak ñoom nous ñu waxtaan ci lu point yu bari. mais ils ne sont pas tombés d'accord d'accord uñu léegi nag PUR ñëw tamit nous ay plan am bi bi nous PUR ñëwee indi projet indi ki bi ñu xol ko yëpp le président Mansour ne xam na moom ndegam jot naa recevoir les cinq candidats la majorité des candidats qui font qui sont des candidats à la candidature mooy candidat wu élection bi mu jël décision boobu mu ne leen léegi nag moom il ne va pas décider moom en tant que président Mansour parce que bu décider dafay mel ni lu genre dictature wala wala affaire monarchie la yu demee noonu mu ne daf ko yóbbu lépp day dajale tous les responsables départementaux et communaux qui sont dans bosnie de en conclave pour que chacun d'entre eux wax kan la faral ça s'est passé le dimanche passé Café de Rome le comité d'initiative responsable départementaux département bu doit wax Les responsable bu ci

mooy Issa Sall Issa Sall moo ñëw proposé teg programme am ci programme bi nga xamante ni moom la Issa teg ak ñun programme bi ñu yor benn programme la ñu xam ne lii benn la léegi ñun lu ñu demandé woon Issa leen rek la moom mooy mu intégrer euh, les assises nationales li ñu jëloon ci assises nationales yi na ko intégrer ci biir mu d'accord mais li Issa teg comme programme bésu ñàkk 100 and na ci ak mom ñu xamné ne ni kii moom et puis boo ni coalition boobu bo xolé ni and nañu ak sentu ñu ci dërëm parce que c'est différent des autres coalitions bo xolé la coalition actuelle bi fi nek mo né la coalition Benno Bokk Yaakaar ñom ñi fi nek ñëpp chacun coalition bo xamné jeu d'intérêt la ba paré benen coalition bo xamantene amna am ci bir coalition tamit jeu intérêt la buñu gagné na am nangam na am nangam na am nangam waaye boo xoolee la coalition pure ñun ak ñoom peut ñoom benn la kon ñu ne kon nañu ànd ak ñoom loolu la parce que dañu amoon soit soit les deux kenn nañ ci mënoon jël ñu jël ko. ah mais Macky Sall moom nee na 60 pour cent pour cent politiquement wax na dëgg politiquement wax na dëgg waaye techniquement waxul dëgg gis-gisam la waxee ak bëgg-bëggam. d'accord naa ci bëgg-bëggam waaye moom itam ndegam wax na bëgg-dëggam bëggam nañu may tamit ñun itam ñu wax suñu bëgg-bëgg li ma jàpp ba tey Cheikh Issa Sall mooy jël premier. ba ba pënd ba wëre. deuxième tour moom c'est inévitable kenn mënul wax moom leneen ak leneen deuxième tour moom c'est inévitable que que quoi qu'il en puisse se passer. pur de ci boc. Maintenant, na trop parce qu'on l'a toujours soutenu on l'a toujours soutenu mais du moment que soutenir na on respecte respecter choix am mais nous du nouvelle bu parce que nouvelle bu neex c'est nekkoon Khalifa Sall nous soutenir la coalition pure. non non Il dit bu defee Khalifa Sall tête de liste nationale il Idi dañ ko faire tête de liste régionale.

dañuy respecté choix am mais yaakaaruma mu am ci lu mu wàññi ci ñun soit que dañuy gën a yokku rek waaw. ah non mooy li